Modou Fall laa tudd président ànd defar Kër Moussa ok usine jën bi moom moom mooy sunu naqar ba tax ñu dajee fi yàgg nañ koo jooy comme ni ko professeur waxee léegi ok usine bi def naa jot nañ cee nekk waaye doon ko xeex ci ñetti façon xeex euh, bu njëkk bi dañ ko doon def ci ci ci yar beneen bi ci tegu ñu koy def ci am xel beneen bi koy ñetteel nag moom moom ci leen jëm nii bon yar bi moom moo doonoon fexe nañ ba gis ñi nga xamante ni ñooy suñuy kilifa muy ki fi nekk comme chef village ak ñëpp même chef de quartier yu bëri yoo xam ne gisatuñoo ak ñoom ak ñu bëri ci waa dëkk bi mën naa ne waa dëkk bi yëpp euh, bañ ci jógee gis nañ autorités yi dem nañ ci maire bi euh, dem nañ ci sous-préfet dégg nga comme ni ko professeur waxee léegi. ndax doy na sëkk bu bu doon kii pétition bi ñu def rek man man man noo xam ni kon dem nañ fépp pétition boobu bi ñu koy def fu ñu dem da ngay dañuy sawar pour signer euh, ngir pour bëgg lépp lu ñuy wax ñu man ko layal vraiment ñu ñu dem ci ak ak ak maire mu ñu ni moom fekkewul audience bi mais audience bi wér na ko ni am na mais dina laaj kon lan moo fa jógee te déjà bi muy wax loolu moom fekk na signé na autorisation ba noppi mu ni waaye nag. condition yi nga xamante ni moom la signé autorisation bi moom mooy li li li li wax ni jàppandi na pour usine bi mën nekk boobu moom mooy bi nga xamante ni doon nañu ko def ci ab yar ci yu mel noonu mu leeraloon ñi ni moom dina xool ñi teewoon loolu yëpp mu woo leen ñu dajeeg ñun ñu leeral ñu lu tax ñu ñu ñu wax ni usine mën na fee ne ñun ñu bokk dégg boobu boobu mooy bi doon def ci ci ci yar ak teggin bi beneen bi ci tegu nii muy eh, ñu def ci am xel moom mooy bu ñu fexee li wa ñu def li li ma waxee léegi mooy pétition bi ngir gindi nit ñi leeral nit ñi waa dëkk bi yëpp pétition bi mënoon na ëpp mille et quelques loolu loolu moom danoo dem ba am lu mat mille et ñu ni nan nan fexe déposé ko ndax ba la muy gën a yeex comme waa ji mi ngi liggéey te ñun neexuñu il kon ñu ñu ñu fexe def lu gaaw ba ba autorité yi jot ñu kon déjà kon dem nañ ci ñu ñuy yilif ñëpp ndax euh, pétition bi dem na ba ba ba gouvernance kon yóbbu nañu ko fu ñu ko war a yóbbu loolu moom mooy bi ñu doon def muy muy kii bu defee loolu kiiwul fexe naan euh, lu man ni actuellement ni def naa bi ñu ngi ñu ngi essayé di di jéem a ut ak ak yu mel noonu euh, avant loolu ut huissier pour mu ñëw ko def constat yi gis gis li ñuy li ñuy wax li ñuy naqarlu mu teg ci bëtam ba moo ba defal nañu dossier boobu mooy bi doon def ci xel beneen bi ñu jëm ni nag moom mooy bi nga xam ne fit lañ koy defee fit nag moom def naa loolu moom kenn ku ci ne jurul ngay posé sa sa morom question xam nga leen mooy fit bo fit bi moom mooy dem nañ ci suñuy kilifa wax nañ leen leen neexuñu war nañ li waral neexuñu waa dëkk bi yëg nañ ci neexuñu ndax liñ xam ñun ci usine buy implanté borom usine bi fi may waxee yow ñi ngeen gis nii yëpp man ñoo collectif bu toll nii am ay at ñun xàmmewuñu borom usine bi mooy kan def naa usine boo koy implanté ci ci bërëb war ngaa xamante population bi war nga amal war nga leen amal njariñ war la xàmmee nga xàmmee leen mais xamuñu ko mu kenn mënu la wax nii kii moom mooy moom mooy Assane fay aussi benn yoon bi nga xam ne moom la Moussa daje ak moom man ak euh, secretaire général bi ak euh, ki commission bi ma àndaloon muy commission finance bi ak ak ak ñenn ci sunuy sunuy kilifa ba fa demee daf ñoo xamal ne da ngeen a amul liggéey ba yóbbu ngeen dem dox yi waaye xamu leen waaye seen seen maire xam na ma bu ngeen bëggee lu ngeen xam dem leen ca maire ngeen laaj man dama am ay samay kayit yu valable damay liggéey te kenn mënu ma teree liggéey maanaam kon loolu bu ngeen ko déggee xam ngeen ko ko mi ngi ñuy menacé mi ñuy ñuy ko loolu nag tax na ba àgg nañu foo xamante ni usine bi danoo wax ni lu mën a am du du liggéey maanaam du liggéey du question que bâtiment bi du continuer ax kay bati bañuñu bâtiment ñu mu def fa leneen mais usine u jën la nungul loolu am fa usine bi tamit bañuñu ko ñun bañuñu usine mais usine bi fi mu nekk lan bëggul loolu tamit bëggoon na nit ñi xam ko. def na euh, professeur wax na ko léegi usine bi li li mu njëkk a def dafa ñëw baare ay mbedd maanaam fi mu nekk noonu usage d'habitation la maanaam ku ne xam na ne fu ñuy dëkk la fu ñuy dëkk euh, ndax bokk na ak fu ñu war a implanter usine fu dëkk dafa am nu mu tudd fu ñuy implanter usine dafa am nu mu tudd léegi loolu bokk na ci li ñu gën a naqar li ci tegu mooy usine jën xam ngeen ko ñun ñun jigéewuñu jigéewuñu tefes ba ndox mi di di am ay canal yu muy jaar di mais kon dañu koy jéem def ci ay force di ko vider mais diggante bi muy duggee ci force bi ak bi ñuy vider yéen ñëpp xam ngeen oto bu oto bu buy vider force nu nu muy mel ndax loolu te am na ay fenêtre yoo xam ne ñu ngi ubbeeku ci usine usine usine jën bi ay kër yoo xam ne yëpp ñu ngi ko wër am na ci ay kër yoo xam ne dafa mujj jéem a jéem a ja jënde ko lu bëree bëree bëri ci seen i borom pour pour man ko boole ci usine bi mais ndax loolu yoo xel nu ngu ne ko wala xalaat wala ñun bokk ci man ban réew la nekk wala wan askan la loolu na moom mooy li nga xam te ni moom lañ wax ni bu fekkente ni suñu kilifa mënuñu koo fajal ñun dañ ko fajal te aussi euh, man maa ngi maa ngi soññee tey fàttali ne ba ñu cee dee loolu mën na ko ñëpp xam ndax li tax mooy benn bakken bu bu bu bu bu wàllu junni bakken moo moo moo gën moo gën yaakaar naa ndax dafa am loo xam ni wax dëgg yàlla dañ ci toll te bëgguñ ci woon di toll moo tax ñu jëkk ci yooyu yëpp vraiment fi ñu toll nii moom mooy usine bi waaye ñu ngi koy xaar ba mu ba mu yaakaar ne day ubbi usine bi di fi di fi di fi liggéey liggéeyam boobu. loolu moom duñ ko nungu tey te duñ ko nungu ëllëg dinañ ko am ndax li ñu koy may moom mooy suñu taxawaay ndax euh, collectif la boo xam te ne waa Kër Moussa yépp maanaam nungu nañ ni collectif bi mi ngi fi te mi ngi mi ngi jariñ Kër Moussa ba mi ngi ñu yebal fu ne euh, li tax li ñuy li ñuy li ñu mos a mujj jëlee ci monsieur le maire ci li mu ñu wax ndax def naa décembre bi rek dem nañ fa mag comme ni ma leen ko expliqué woon bi ñu fa demee bi ñu ko laajee daf ñoo leeral ni usine bi. moom mënatu cee wax lam ñu waxoon dinañu ko indil sax mënatuñu ko andil ndax li tax moom mooy euh, ay ay autorités yi ko gën a yi ko gën a kawe ñëw nañ fi euh, ba ba ñëw nañ ba ba def seen rapport ba ñoom lay déglu kon du wax seen du wax seen ginnaaw baa mu ci da leen déglu ban àggal xañ na kon lii fu mu war a yegg yegg na fa waaye li des moom mooy ñu wax ak jàkkaarloo kenn nit koo xam te ni dëkkoo sax ci maanaam dëkkul sax ci région Thiès waxuma commune bi waxuma arrondissement bi mais dëkkul sax ci région Thiès léegi mu ñëw ci ci benn dëkk ci ci ci benn euh, commune jël jël ci benn dëkk ci benn dëkk ci kaw télé bi bëgg fa def loolu mais loolu waruñu kenn waru ko nangu ñun ñun moom loolu dañu koy bañ tey te di ko bañ ëllëg te jaral nañu nag loolu bëree bëree bëree bëri ndax fu nu fu nu waxee dee moom def naa dara manqué wu fas yéene def moom mooy yàlla dogal na yaakaar naa ñun ñoo doon wax bu kenn def dara ñun bu fekkonte ne toppoon nan ñi ci suñu gannaaw kon ba léegi yéen bu ngeen ñëw da ngeen di àtte da ngeen nekk kër wala dara ja tuuru man ak man may en tant que président ak ak en tant que professeur comme Ndiassé Kairé comme moom ci wàllu droit lay dox moo doo moom moo doon bëgg ñu ñu topp yoone benn par benn moo tax sax affaire bi waa ji agsi fi mu yegsi ndax bëggul moom ku ko jam ci mi ngi suñu ginnaaw xam na xam am na xam ci li nekk muy seetaan ba naa ko xanaa néewu la ko nekkoo fi woon loolu moo waral ñu ne woon askan wi def leen dànk ñu topp ci suñuy suñuy kilifa xañ na bu ñuy déggee dinañ ñu wàllu mais loolu bu amul li des moom mooy mbajum kanam borom a koy fayal boppam. bonjour chers journalistes bonjour chers camarades représentant de la population de Kër Moussa je me nomme Ndiassé membre de la coalition de l'association And Defar Kër Moussa et un des porte-parole du jour concernant le porte euh, le point de presse qui sera tenu contre l'implantation de l'usine de, de la poissonnerie au niveau de Kër Moussa. qu'il s'agit d'un différend qui oppose d'une part le promoteur dénommé Hassan Faye qui veut implanter une usine de poissonnerie à Kermoussa en toute violation des dispositions du côte de l'environnement et en toute violation des droits des habitants de Kermoussa. Et lorsque nous avons été informés du début des travaux, Nous avons pris les renseignements nécessaires acquis de droit. C'est ainsi que nous nous sommes interrogés sur la nature de l'entreprise, de l'usine. Nous nous sommes interrogés, inter, interrogés sur les activités menées par cette entreprise. Nous nous sommes interrogés maintenant sur le, la dangerosité des activités menées par cette entreprise. Et en ce moment-là, nous avons constaté que c'est une entreprise qui est dangereuse pour la population de Kermoussa et pour l'environnement. Parce que nous avons eu recours à beaucoup d'expertises qui nous ont informés que cette entreprise-là fait partie de la catégorie des installations classées et que au Sénégal, les installations classées obéissent à un régime préventif, un régime qui nécessite des règles rigoureuses et que ces règles-là n'ont pas fait l'objet de respect par le promoteur. Quelles sont ces règles-là Avant toute implantation de cette entreprise-là, parce qu'il fallait d'abord commencer par la définition des, des installations classées. Il s'agit des installations qui soient présentes des dangers pour la santé, la sécurité et la salubrité publique ou privée des populations et d'autre part pour le commodité de voisinage. Et que cette usine-là répond à ces différents critères-là et constitue une menace pour la population. Le sachant, nous avons entrepris un certain nombre de démarches. Maintenant, quelles sont les formalités requises pour que cette usine-là soit implantée Parmi ces formalités, nous avons découvert que, avant tout début de, tout début de construction, il fallait impérativement avant une autorisation de construction délivrée par le ministre de l'Environnement, ce qui n'a pas été fait, ou bien à notre insu. Ensuite, cette autorisation du ministre de l'Environnement est assujettie à beaucoup de conditions Parmi ces conditions-là, il fallait euh, obéir au régime des établissements des entreprises classées et des entreprises classées de première classe, des installations de première classe du moins. En ce moment-là, il fallait installer l'entreprise au minimum à 500 mètres des habitants en raison du danger que présente ici, ici c est, c est cette entreprise-là. Ça n'a pas été fait. Et vous l'aurez constaté que cette entreprise a été installée au milieu d'un quartier dénommé Kenaba. Ensuite, à 3 ou 4 mètres de la route principale. Donc, c'est une violation à la disposition du Code de l'environnement. Ensuite, cette autorisation est soumise à d'autres conditions comme une enquête publique. Normalement, avant le début des constructions, il devait y avoir une enquête publique qui devait être diligentée par le gouverneur de la région de Thiès. Et phase pendant laquelle le maire de la commune de Kermoussa, ici par le biais de son conseil rural, devait donné son avis favorable et que l'avis favorable de ce conseil rural ne nous, a, ne nous a jamais été notifié, Ensuite, il devrait être tenu compte d'une audience publique parce qu'il devait normalement y avoir une étude d'impact environnemental. Cette étude euh, d'impact environnemental a été bugée, a été torpillée. Pourquoi Parce que l'un des éléments essentiels de cette étude d'impact environnemental, n'a pas fait l'objet de respect, c'est-à-dire la tenue de l'audience publique. Et que nous, populations, nous avons constaté que cette audience publique n'existe pas, ou bien elle seulement que à des raisons fictives. Parce que c'était la bonne occasion pour la population de s'imprégner du dossier, de connaître les tenants et les aboutissants de ce projet-là et de donner les recommandations et les conseils par rapport ici à l'implantation de cette tente a été fait, normalement les travaux n'auraient pas dû être commencés. Et encore une fois, par rapport à cette étude d'impact environnemental, pour constater le refus de ces populations-là, nous avons ici tenu compte de toutes ces irrégularités commises par le promoteur. Nous avons initié des démarches administratives. Nous avons saisi le maire pour s'imprégner de la situation en tant qu'autorité locale. Mais le maire était incapable de nous donner une information fiable par rapport ici à l'implantation parce qu'on ne peut pas concevoir que le maire, autorité locale, ici de, de la circonscription dans laquelle ici est implantée cette entreprise-là, le maire n'est pas en connaissance du processus. Alors que légalement, il devait être au cours de ce processus-là. Il n'est pas capable de nous donner une information fiable. Donc ce silence du maire est considéré comme étant un silence complice. Nous considérons que ce maire est toujours derrière ce promoteur-là. Au lieu de se ranger derrière la population pour une cause noble, parce que nous Nous luttons pour notre santé, nous luttons pour la protection de notre environnement. Il n'y a pas beaucoup plus légitime que d'aller se ranger derrière ce dit promoteur-là pour des raisons personnelles. Et ça, nous le fustigeons, nous le dénonçons jusqu'à la dernière énergie. Ensuite, nous avons saisi les autorités administratives, commençant par le préfet, avec une pétition de 1000 signataires. Et parmi la pétition de 1000 signataires, les populations qui sont aux de l'usine-là ont été les premiers signataires. pour, pour, manifester, pour, pour, remettre en cause la tenue de l'audience publique qui aurait donné un avis favorable ici pour l'implantation de cette entreprise-là. Et que cette pétition a été remise au préfet avec ampliation du gouverneur. Ensuite, nous avons ici, nous sommes en train de déclencher une procédure judiciaire contre l'implantation de cette temple parce que la population de Kermoussa n'entendra jamais, il ne sera jamais d'accord sur l'implantation de cette entreprise-là, sachant les dangers que cela peut emporter aussi bien sur la santé des populations que sur l'impact de l'environnement. C'est pourquoi nous avons décidé, nous, population de Kermoussa, si nous avertissons les autorités, à commencer par le président de la République, et c'est un dernier avertissement parce que la population a été largement patiente. Un dernier avertissement. Pourquoi Parce que nous avons, nous avons averti le président de la République, le ministre de l'Environnement, le directeur de l'Environnement et des établissements classés, le gouverneur de la région de Thiès, pour que si, dans un bref délai, le problème n'est pas réglé, ici, la population de Kermoussa va prendre le problème en charge et qu'il y aura inévitablement des confrontations avec le promoteur la Maintenant, pour parer à toutes ces conséquences éventuelles, nous demandons solennellement l'intervention de toutes les autorités, de, les services, de tous les services nécessaires pour que nos droits soient rétablis. Parce que si cette usine-là est implantée dans un, dans un avenir proche, nous serons tous malades. Il y a la pollution de l'air. Il n'y aura pas de sécurité parce que l'implantation de cette usine-là est sur la voie principale et que là, ça peut être gaz, maintenant, ça des accidents de circulation. Même pour les travailleurs qui seront dans l'entreprise, nous ne serons pas en sécurité. Les fosses qui ont été creusées au niveau de, de, de cette entreprise-là s'ouvrent à travers les fenêtres des habitants. Et ça peut créer des dégâts de pollution l'air, ça peut créer des maladies, ça peut créer des maladies euh, d'ordre sanitaire. Et c'est pour cela que nous demandons solennellement ici au président de la République d'intervenir à tous les services qui sont, là, qui sont habilités à intervenir Sinon, la population va prendre en charge le combat et toute la population, la population est prête à sortir, quelles en, quelles en soient les conséquences qui peuvent en découler. Nous avons démarré il y a en 2016 et 2017. Et quand les travaux ont démarré, nous avons anticipé. Nous avons ici saisi le maire, nous avons saisi toutes les autorités administratives Maintenant, après avoir saisi les outils administratifs, le préfet, nous avons promis de mener une enquête administrative et qu'il va nous tenir informés. Mais paradoxalement, non seulement le préfet n'a pas tenu cette enquête administrative à notre, à notre, à notre savoir, mais paradoxalement, ce qui nous inquiète le plus, il est en de continuer ses travaux comme si de rien n'était. Considérons que les autorités sont derrière lui. Maintenant, je dis ici, solennellement, s'il est fort, aussi fort, s'il est aussi riche, pour manipuler les autorités, il, ne sera, il sera faible devant la résistance de la population de Kermoussa. Il est en train de continuer cette, ces travaux. Parce que le, cet appel, ça ne surprend pas que cet appel tombe à l'oreille du sourd. Mais maintenant, j'ai dit que nous avons averti et nous allons passer à la vitesse supérieure. Si la vitesse supérieure, c'est quoi La population va sortir, va se dresser contre, comme un homme pour, pour exiger la fermeture de cette entreprise-là. si cette entreprise n'est pas fermée, quelles en soient les conséquences de la population de Kermoussa va endosser. Ce que nous intéresse, parce qu'ici, j'ai dit tout à l'heure, l'entreprise est à des travaux, mais l'entreprise n'a pas commencé à encore à exercer ses activités. Ce sont ces activités-là qui seront néfastes à la population. Donc, ici, nous exigeons, malgré que les travaux ont été entamés, nous avons entamé notre procédure depuis le début des travaux. Et malgré tous les travaux, on en train de continuer, il est en train de faire le forcing et la population ne va pas céder face à ce forcing-là. Donc, nous n'attendrons jamais que l'entreprise va commencer à exercer ses activités. La population va dire non et dire non. Et quel...